am si ñoo xam ne dañuy jël seen jabar yóbbu leen bitim réew ñu nekk bitim réew ak ñoom bu ñu yeggee bitim réew rek trahir leen am na moodu moodu yu bëree bëree bëree bëri seen xel jaxasoo na seen yaakaar tas na seen xol neexatut découragé nañ ci àddina parce que seeni jabar ñoo leen tas ñoo tas seen yaakaar seen jabar yee leen ñoo leen wor te loolu lu ñaaw la sénégalais comme yow di sa mbokk di sa mbokk nga nekk fii di sonn nekk fii di di di torox amoo dara amoo lenn mënoo am dara lu sot nit ki gis la bëgg la am ci yow yaakaar takk la bëggal la boppam fopp alalam def ci yow jël xaalisam paasal la bii indi la bitim réew nga ñëw foofu noonu yàlla dogal nga gis alali àddina rek fàtte kóllëre fàtte àllaaxira fàtte yàlla fàtte mbaax gi waaj def ci yow ak lum la mënti def ci naqar ak lum la mënti tooñ war ngaa sedd yàlla cër wala ngaa sédd démb cër waaye am na ñoo xam ne boo leen takkee ba yóbbu leen bitim réew buñ ne cëpp ci réew mi yow yaay njëkk a nekk seen noonu te loolu lu ñaaw la nit ki nga xam ne ba nga amul dara mënoo dara tekkiwoo dara soo lekkee moom la soo naanee moom la soo soo soo tëddee moom la foo dugg moom la nga xëy am ay xarit ñu naan la fii fi tal sëy fii kana fi kenn sëyu fi sa waa ji da lay fat mayu la nga noy bëggul nga réussir demal nga liggéey nga gis keneen ñëw sax beneen waaye ñëw sax imposé la xaalis nga sànni sa nit ki war ko wan ko ginnaaw dem ma ne loolu sénégalais bu ko def sa mbokk sénégalais war nga ñu ñun ñëpp war nga ñu ñun sénégal yëpp te nga xam ne yaa ñu uutu waroon a uutu yaa waroon a uutu suñ yaay yi yaa waroon a uutu suñ sœur ci ci sëy bu baax <clears throat> yaa waroon a uutu suñ sœur yi ci exemple bu rafet tey tas nga yaakaaru famille bi tas nga yaakaaru mbokk gi ah, am na ci ñoo xam ne sax bu ko defee seen yaay yi dañ leen ciy faral man ñu bëri dañ may oo ah, Cheikh Omar dimbala ma defal ma ñaan parce que sama jabar dama ko indi ci réew mi lu ma defut ci moom amut indi naa fi frère indi naa lii tabaxal naa la seen kër keroog bu ma ko indi ci réew mi kër gi ma dëkk sax daf ma koo génne loolu ñaaw na alalu àdduna jaru ko am na ñoo xam ne seen yaay sax dañ leen ci faral seen goro yi seen jëkkër yi sax bu ñu ooyee seen famille oo seen papa yi sax da ngay dégg ñu ne ah ñu newu ci parce que xale bi mu ngi dël xaalis di leen ko yónnee loolu gor du ko def nit ku baax du def loolu loolu ñaaw na waxtu woo defee loolu alal joo ci mënti jëlee lu mu bëri bëri bëri lu mu neex neex neex soo sa woo tëddee te xalaat fi nga jëlee sa alal rek da nga xam ne yow war nga sa bopp war nga sa njaboot war nga sa ëllëg war nga sa àddina war nga sa àllaaxira kóllëre kenn du ko fecc nit nag mën na mer mën nga am sa jëkkër ngeen nekk ñàkk a déggoo kenn werante wut na sëy day am neex day am naqari mais am na loo xam ne jaru ko dara jaru ko ci kaw suuf parce que dangay ngay dee da ngay màgget la tax nga war ko day jeex nga yàq avenir nit ki yàq xolam dootu tax bëggati jigéen am na ci ay góor ñoo xam ne noonu lañ mel am na ci góor ñoo xam ne jigéen ñi ñoo leen di takk wala ñoo leen di fat ñu trahir leen wóor leen yàq seen àddina loolu dafa ñaaw ay sénégalais ngeen ay nit ngeen ñoo xam ne senegal def leen a yaakaar loolu nag la ca ëpp mooy jigéen ñi dem nañ ba moodu moodu amul benn moodu moodu bu bëggati yóbbu jabaram bitim réew